salaamaaleykum cher internet ñi ngi à Guédiawaye particulièrement à Amadou Barry euh, ñëwoon seet si supporteru Guédiawaye yi surtout benn groupe bu ñu naan Guédiawaye FC je m'engage bon tey la seen deuxième année anniversaire moo taxoon ñu ne nañ leen seeti def si ñoom benn waxtaan xool lan mooy bitu groupe bi ak lan moo taxoon ñu créé groupe bi. Euh, tur bi nan la. Euh, man Khadim Rasoul Fall. Khadim Rasoul Fall yow si groupe WhatsApp bi nga bokk. si groupe WhatsApp bi laa bokk. bon yow nan nan nga def ba intégré groupe WhatsApp bi. ni ma defee ba intégré groupe WhatsApp bi avant groupe WhatsApp bi supporter simple la woon dama ñëw seetaan dem ñibbi mais benn jour à travers Facebook laa gis benn annonce. kuñ naan laay siise mu bind ne dafay créer benn groupe whatsapp pour les supporters de Guédiawaye ma ne voilà l'occasion kon xaaral ma contacter ko noonu laa def ba dugg si groupe WhatsApp bi. bon nan nga gisee groupe euh, WhatsApp ak Guédiawaye FC Zamanga. vraiment benn initiative boo xamante ni bu nice la parce que mën naa ne groupe WhatsApp bi Guédiawaye en miniature la quoi tous les fils de Guédiawaye ñi ngi si boo si duggee di nga si gis étudiants élèves ouvriers ñëpp nga si nga si gis ñu tase. mu doon benn affaire boo xamante ni dafa ñuy permettre ñuy rencontré wu di gisante di xamante di permettre ñuy gën a mën a jege suñu club avant loolu manqué woon na fi mais depuis ba groupe whatsapp bi amee ba léegi ku nekk da nga gën a sentir sa bopp si géejawaay da ngay gën a yëg ni lii nii sama yëf la xaar ma bokk si di am information yi à temps euh, permettre nañu tamit ñu autonome ñooy cotiser suñu bopp di defal lépp suñu bopp def nañ si lu bëri loo xamante ni si suñuy moyen bopp lañ koy defee vraiment quelque chose la bi nga xamante ni xamuñu sax fu bañ koy def lu ndaw la woon mais dem na ba Sénégal yëpp xam naa ni club yi di lañ ko roy ci. mais est-ce que mën nga ma wax quelques réalisations yi nga xam ne groupe WhatsApp bi def na ko si Guédiawaye. groupe WhatsApp bi réalisation yi def na surtout si sociale def nañ lu bëri si sociale daaw dem nañ si si fële seeti jee handicapé yoo xamante ni euh, vraiment manqué nañ ay ay couches ay lee yooyu yëpp jënd nañ ko dem jox leen ko euh, ba tey ñooñ dañuy ñaanal boo jugee loolu daaw phase nationale yi équipe bi fii ñëwoon nga xamante ni dañuy jugee si région divers région yu sori ku si nekk ñëw nañ jox la ay ndox loo xamante ni da leen di manqué loolu groupe whatsapp bi def nañ ko si entre nous li ñuy dimbalante suñu biir loo xamante ni kenn lu xam mën naa ne groupe whatsapp bi social lay gën a yëngu sax que affaire supporter parce que ñun suñu suñu nekkatul ñëw rek supporter dañuy supporter di def social si social def nañ si loo xamante ni bëri na trop te waa Géejawaay gis naa ni ñu ngi siy teg seen bët quoi. mais nan ngeen dundee benn saison euh, passée saison bi yëpp ngeen toog euh, di préparer pour supporter équipe bi ngeen xam ne moom ngeen di supporter joué nan ngeen dundee loolu. dund nañ ko avec difficulté. dund nañ ko métti na trop parce que ku si nekk xam na ni supporter moom clubam kese moo koy moo koy dundal mbégte lay am si chaque dimanche ñu dem gisante supporter. loolu bañ ko amul mais gis nañ supporters yoo xamante ni dañoo ànd ak seen dignité dañoo ànd ak seen fierté xam ni géejawaay seen patrimoine la euh, donte daanuñu supporter mais chaque dimanche di lañ tase xool nan lañuy def nan la ñuy kii ba gën a ba récupéré waat suñu club. ñi woon si ay combat yu bëri seen géejawaay ñi ngi koy gis combat yoo xamante ni si yoon lañ koy teg kenn gisuñu dugg si loo xamante ni lu ñaaw la wala